noo ngi woon ci aaya téeméer ak fukk ak benn wala téeméer ak fukk noo ngi woon ci jeexaloon xisi waroon a tàmbali law anana nazalna loolu ci la na am la woon dafa waxoon démb ne saar wi yépp benn sababu nuzuul la am nee na du tere nag léeg-léeg mu nettali benn xew-xew bu dëppoo ak li muy wax moo tax mu nettali ni Ibn Abbas dafa sole ne benn menn mbooloo ñëwoon na ci yenent bi mu nettali loolu yéefiri màkk la woon te kàngam ya sax bokkoon nañ ci ba ñu ñëwee ñu ne ko wan ñu malaaka yi ñu ñu janoo ak ñoom buñ gisee malaaka mu wax ne yow yàllaa la yónni ah nu xam ne loolu dog na sikk soo mënul loolu nag nga dekkal suñ maam yi deewoon ñu wax ñu ne li nga wax ci dekkeek àllaaxira dëgg la ñoom danañ ñu wax ne ndax li ngay wax dëgg la wala déet comme deewoon nañ bu yàgg boo mënul loolu nag li gën a jafe mooy nga won ñu yàlla ak i malaakam yépp yàlla nekk fee ak i malaakam ñu nekk fii janoog ñoom loolu daal boo ko mënul booy wax xam ne ñun duñu la gëm buur nag wan yonent bi ne loola sax boo ko defoon it duñu la gëm moo tax mu ne law annana doonte naka nun yàlla nazalna wàccee nañ ilayhim ci ñoom almalaikata malaaka ya wa kallamahum te waxeek ñoom almawta way deeye it wa xacharna ñu fang mooy dajale alayhim ci ñoom kulla cheyin lépp lëf xubulan ñu di way jàkkarloog moom it maakaanoo nekkuñ li yoominoo diggam ilaa an yasha allah lu may bu neexee yàlla walakin waaye ak turam gën jëbëri seen yi ca woon danañu réere wa kadalika naka noonu nga nekkee waa màkk ñu weddi la jaal naa la ñu mujjal li kulli nabiyin yel bépp yonent àdduwan ay noon shayatin al insi sheytaane ci nit ñi wal jinne ak jinne yi yooxii di wax yu baadum leen ci ñoom ila baadin ca ñenn ña zuxrufal qawli wax joo xam ne duñu rafetal ca kaw la te mu bon ca biir xuróoran ngir wor leen walaw shaa bu neexoon rabbuka sa borom maa faaluhu duñ ko def kon fadarhum bàyyi leen ci li ñu nekk yàlla la soob uma yaftaroon ak li ñuy duudal wali tasga ak xerawloog déglu ilay ci moom afidatu ladina bëti ñi nga xam ne laa yóomi na duñu gëm bil axirati ca àlaxira wali yardahu ak ñu gërëm ko wali yaqtarifu ak ñu sàkku it maahum laa ñoom muqtarifuuna way sàkku lañu ko bur ne mu ngi seedal yonent bi ne ci dëgg la nekk moo tax mu wax ko ne am na ñaari mbir yuy tekki ne yow yaa ngi ci dëgg benn bi moo di ne alquran kawtéef la miracle la buy des ba bés bés pénc te alquran ku ko jàng dana xam ne yow ku dëggu nga lépp loo jottali it ci yàlla la jóge ñaareel ba mooy alul kitaab xam biñ la xam ci seen téere seede ko doole it mooy tekki ne yaa ngi ci dëgg moo tax mu ne afa abri ndax damay sàkku xayrallaahi lu muy yàlla xakaman muy àtte wa huwa te yàlla allazi mooy buur bi nga xam ne ansala wàccee na ilaykum ci yéen alkitaaba téere ba mu fassalan mu di lu ñu teqale walladina ñi nga xam ne àttey naa am jox nañu alkitaaba téere bi yaalamoona dinañ xam ne annahu naka moom munazzalun luñ wàccee la min rabbika bàyyi ko ci sa borom bil xaq ci dëgg fala takunanna bul nekk kon minal mumtari ni ci way sikk yi wa tamman mën na kalimatu rabbika baati sa sa borom sidqan ci dëgg wa adlan ak ak maando laa bu baddila den aji soppi aji walbati li kalimaat yi ci baatam yi wa yàlla samiu muy aji déggal alim muy aji xam mu ne mushrikoona yi seen pas-pas yu yàqu yi ak seen xeeti rend yi ñuy rendil xërëm yi yàlla ne yonent bi wayin tuti ndem topp nga ak taraman fil ardi ñu gën a bari ñi nekk ci suuf soo leen toppee yu dëlluwu nag yu dëlluwu ka ñu réeral la an sabilillahi walis yoonu yàlla te in yattabiuuna déen ñuy topp ila danna lu mooy njoorta wa in hum déen ñoom illaa yaxrusoon lu mooy dañuy nar maanaa dañuy nattale rek di njoorta ak def taxmin waaye amuñ lu leen wóor inna rabbaka naka sa borom huwa mu aalamu moo xam man yadluka dana réeree an sabili ci yoonam huwa yàlla aalamu moo xam bil muhtadina ci way jub ya yéen nag fokk loo lekk leen mi maa ci lépp loo xam ne du kira tuddeef na ismulaay turu yàlla alayhi fak reyam in kuntum ndem nekk ngeen mu'mine di way gëm bi ayaat yi ci kawti fi yàlla muy alquraanam wa maa lakum loog yéen allah taakuloo du ngeen lekk mi maa du kira lépp la tuddeef na ismulaay turu yàlla alayhi fak reyam waqat fassala te yàlla moom teqale wona lakum ñeen leen ca maayida maa xarama lu xaraamoon aleykum ci yéen illa ma turitum lu mooy loo xam ne da ngeen a loru jëm ca ilay jëm ca moo tax ngeen lekk ko way na katiran naka lu bari ci nit ñi la yuddiloona dañuy réeral bi awaayam seeni bànneex bi xeyri ilmin ci lu benn xam-xam ñu doon jàngal mu ne loolu yàlla ni mu ko waxee noonu la amee noonu lay wéyee dangay wax ak nit mu ne man dey jànguma waaye boo jàngul da nga war a noppi rek xamuma noppil xawma ci dara waaye jànguma waaye déedéet mu ne ñooñu la yàlla wax ne ñu bari dañuy réeral nit ñi ci seen bànneexi bakkan ci la dul xam-xam ndax ku xamul boo waxee rek da ngay réeralaat waaye nag katiran la yudilluuna bi ahwaa'ihim bi geyri ilmin inna rabbaka naka sa borom huwa aalamu moo xam bil mu'tadina ci ñi tooñ di jéggi dayo wa daru bay leen zahiral ismi aji feeñ ji bakkaar wa batinahu ak aji nëbboom loola yépp na ngeen ko bokk bàyyi inna alladina naka ñi nga xam ne yegg si bona dañuy faggu alisma bakkaar sa yu jësaw na def na fay leen bi maakaanoo ci lañ nekkoon yaqtarifuuna di sàkku ko wala taakulu bu leen lekk bi maa ci li nga xam ne lam yuzkar tuddeeful ismulaahi turu yàlla alayhi fëkk reyam wa innahu lekk loo xam ne bañ koy rey tudduñ fa yàlla waxuñ bismillah la fisqun génn ak topp la wa inna shayatin naka sheytaane yi la yuuxuuna ñoom ñooy wax yu ilaa awliyaam jëm ci seen wàli ya liy jaadilookum ndax ñu dàgge seen teg yéen wa in ataatumuhum ndem topp ngeen leen ca loola innakum yéen la mushrikuun way bokkaale ngeen yéen it comme ñoom mu ñëw ci misaale julit bi ak yéeféer bi julit julit bi moom lay misaale suuf su wow koŋ ndox wàcc ca mu taw gàncax sax ca mu meññ loolu mooy ki gëmuloon yàlla yàlla xéewe ko mu gëm yàlla leer nekk ci xolam mu am iman mu ne loola mooy jullit yéeféer lay misaal ne mu ngi mel ni koo xam ne ci lëndam la nekk rek di làmbatu ndax xerem yi mu topp sax amul lu ko wóor ne ñooñu yàlla lañu moo tax mu ne awa man kaana ndax ku nekkoon na mayitan di aji dee démb fa axyaynaahu ñu dundal ko ci gëm yàlla wa jaal naa ñu mu jël def la wa ñeel ko nooran leer yem si muy dox bii ci leer ga fi naasi ci nit ñi kaman dana mel ni ki nga xam ne masaloo misaalam fi dulimaati ci lëndam yàlla laysa bi xaarijin duwut aji génn mi naa ci loolu kadalika naka noonu zuyina la rafetalee fee lil kaafirin ñeel yéefér yi maakaanu la ñu nekkoon yaamaloon di def ko kadalika naka noonu jaxal naa la ñu mujjal fi kulli qaryatin bépp dëkk ñu def akaabira mujrimiha way màgg ya ca def kati bàkkaar ya ñoom la ñuy jiital liyam kuroo ngir ñu fexe lu bon fiyaa ca dëkk ba bu ma bëgg yàlla aw xeet damay seet ñi ci gën a mag ñi ci gën a am daraja ñi ci gën a am kaddu ñu nekk ñu dëng nag te am kaddu ga su ko defee li yamkuru fiha wa maa yamkuruun waaye du ñu fexe illaa bi anfusihim lu mooy ci seen bopp lay dellu wa maa yash'uruun te yéguñu lool mu ñëw ci sunna si yàlla ci ay mbindeefam te ne diine mooy dëgg moo tax mu ne fa man yurid ku namman allahu yàlla an yaadiyahu mu jubal ko yashrax mu ubbi sadrahu ab dënna muy xolam lil islaami ci lislaam waaye wa man yurid mu ñëw ci war ak mushrikoona yi wa ida jaatum dem dikkal na leen aayatun benn aaya wala benn kawtéef xaaloo ñu ne lan numina gëmtinu hatta nuutaa ba joxeef ñu mislima wutiye comme la joxeef na ko rusulullah yonenti yàlla yi allahu yàlla aalamu moo xam xay sa yejaalu fu muy def risala toog yonentaam sa yusibu dana jot la ci na ñi nga xam ne ajira moo def nañ bàkkaar saxaarun ak doyadi saxaarun ak doyadi ak ak alku indallaahi fa yàlla wa adaabu nag mbugal moo xam ne shadidun aji tarlamu bi maa kaanoo ci liñ nekkoon yem kuraan di ko di ko fexe fa man yurit ku bëgg na nag laahu yàlla an yaa di yow mu jubal ko yashra mu ubbi sadrahu dënnam ci lislaami jëm ci lislaam wa man yurit ku mu namma nag an yudallahu mu réeral ko yajal mu def sadrahu xolam dayiqan mu yaaji xat xarijan mu yaaji tiis ka annama yasaadu mu ngi mel ni ku ñuy yéegloo fi samaay ci asamaan bu ñu lay wax mbi bu ñu koy wax mbiram yàlla day jafe ci moom mel ni ku ñu yéegloo ci asamaan si te amuloo yéegukaay kadalika nag noonu yajalullahu lay def yàlla rijj sa mbugal ma ala ladina ci ñi nga xam ne laa yu'minuuna duñu gëm de wa hada lii siraatu rabbika yoonu sa borom la mustaqiman wu naa wu ne coow xat fasal naa ñun nag teqale nañu alaayaati alquran yi muy kawte fi li qawmin ñeel ñoo xam ne dëkkaroon danañu waaru de lawum ñeel na leen daaru salaam yi kërug jàmm aljanna ay ay turam daaru salaam ci la bokk en rabbim fa seen borom woowu yàlla waliyuhum mooy aji méngoo seen bi maakaanoo ci la ñu nekkoon yaamaloon di def ko de daaru salaam ci turu aljanna yi la comme xayru xayru itam ci turu aljanna yi la tuuba ci turu aljanna yi la am na ay turu yoo xam ne mat na juróom-ñett ak i dàkkent ci yooyu ci la bokk mu ne ñii nag daaru salaam la ñuy dëkk genn kër la ci aljanna xayru it wax naa ne ci la bokk ki ñu doon jàngal dafa waxoon ne mu ne dafa waxoon moom it ki ko doon jàngal ne ko xayru turu aljanna la mu ne ko def ci aw woy mu ne waqiila inna al xayra isma daarin min duwaril janna anil muxtaari mu ne ko qiila wérut kon nag te loolu xadis a wax ne xayru turu aljanna la mu daal di nekkoon dukkira inna al xayra isma daarin min duwaril janna anil muxtaari zukira mooy wax nañ ko ci xadis kon kooku ci turu aljanna yi la moom xayru loolu moo tax bu jàngalee ñu ne ko jazakallahu xayran xayru moo di aljan wa yawma yaxsharuhum bés ba dana mu fangal leen yi naan leen yaa ma'sharal jinni ee yéen mbooloom jinne yi yéen day qad istaktartum sàkku ngeen a gën a bari minal insi ci nit ñi jinne yi ñoo gën a bari nit ñi fuuf yéen a gën a bari nag léegi nag yéen a ngi àllaaxira wa qaala wax naa awliyaawum seen kilifa ya mi ne leen si ca nit ña ne rabbana yàlla ñun kat bañ nekkee ci àddina am na ñenn ñu daan nax ñenn ña de istamtaa bànneexu woon na baaduna leen ci ñun bi baadin ci ñenn ña ñuy liggéey di leen jox di am di leen jox ñu leen dig lu ñu amut wa balax naa léegi jot nañ ajal naa suñ dig ba resi bi nga xam ne ajal ta digoon nga ko le naa ñeel ñu léegi nag yàlla nooy def ci ñun ñun kat dañ ñoo naxoon rek yàlla ne déedéet yow ma jox lam xel buñ la naxee ba nga topp lu bokkut ak la ma wax kon yow yaa la nax yépp yéen a yem atte de xaala wax borom bi ne annaaru safarakat maswaakum mooy seen sax waaye yéen ñëpp xaalidiina ngeen di way sax fiyaa ci safara ila macha allah lu mooy lu soob yàlla kum neex mu mu génne ko ci sababi am ram mu de in rabbaka naka sa borom xakimun ku xarala la alimun yàllaa ji xam la mu loolu mooy sunu si yàlla ci ay mbindeefam ak lan moo di seen taxawaay ñoom mushrikuuna yi ci yowmal qiyaam loolu la buur bi di wax ne wa kadalika naka noonu nu walli la ñuy méngalee baada daalimiin lenn ci way tooñ yi baadan ñenn ña bi maa kaanoo ci liñ nekkoon yëg si bone di fàggu ko de yaa maacharal jinni ee yéen mbooloom jinne yi walin seeg nit ñi yàlla ngi leen di waxee ne alam yaatikum ndax dikkalu leen woon ci àddina rusulun ay yoninte yoo xam ne minkum ci yéen la ulamaa wu naxu ne nañ minkum min baabi taglib waaye duhut min al jinni wal insi min al insi rek ndax jinne amuñ yoninte kon minkum ji dafa notal ñenn ci ñenn ña ni ngay waxee abuwaani ñaari baay te nam ma ci ndey ak baay wala nga ne xamaraani ñaari weer te nam ma ca weer ak jant bi kon taglib la waaye jinne amul yonente kon nag bul dégg mukk rusulun minkum nga yaakaar ne ci yéen nit ak jinne la ci nit rek la yonente yi am waaye yonente yi nit ñi nag moom la yónni ci jinne yi yaqussuuna ñuy nettali aleykum ci yéen ayaat yi samay kawtéef wa yundiroonakum ñu leen di wattandikuloo liqaa yawmikum dajeg seen bés bi azabi xaaloo ñu ne shahid naa sedd nañ ala anfusina waral suñ bopp wa xaratum war na leen alxayaat duniya dund àddina wa shahidoo sedd nañ ala anfusina waral seen bopp ne annahum ñoom kaanu nekk nañ kaafirin di way weddi de dalika loolu an lam yakun nekkut yàlla nekkut rabbuka sa borom mulikal qura di ajaal ak ab dëkk bi dulmin ci tooñ mu ne ab dëkk waa dëkk ba lay wax waa luhaa te ñooñ dëkk ba gaafiloona ñu nekk di way sàggan de mu ne yàlla du alak benn dëkk fekk ñu nga sàggan mu ne luy maanaam loolu nee na yàlla du yónni mbugal ci xeet di leen mbugal fekk ñu nga sàggan luy maanaam sàggan fekk kenn yónniwut ci ñoom kenn te amuñ ku leen waar amu leen ku ku leen jubbanti day yónni yónnint jox ko téere wala yebal borom xam-xam mu dëkk ak ñoom ba wax leen li yàlla bëgg ak li mu bañ suñu bañee nag bu mbugal ñëwee yàlla tooñatul leen moo tax mu ne sa borom du du alag waa ab dëkk mukk bisul min fakke moo leen tooñ waxalul leen waa lu waate waa dëkk ba xaafiluun ñu nekk di way sàggan bee lam tabluxu mu daawa wali kulin ñeel na képp darajaatun ay daraja mi ma amiloo ci li ñuy liggéey wa ma rabbuka déet sa borom bi xaafilin di aji bàyyi amma ci li nga xam ne amaloon dinañu def ko li ñuy liggéey yàlla bàyyiwu ko sàgganewu ko da koy bind da leen di fay moo tax yàlla leen di xupp di leen waar ne leen war a bëgg sa borom alxaniyu mooy aji giijal du rahmati yàlla mooy borom yërmande in yasha bu ko sooboon yudhibkum mu deme leen wa yastaxlib mu wuutal min baadikum seen gannaaw maa yashaa lu ko neex kama anshaakum ni mu leen sosee woon min duriyati qawmin ngeen bokk ci sëti aw nit aaxarina ñeneen bu ko neexee mu jeexal leen innama tuuaduun naka la defi tëkkoo leen ko ak di leen ko dël ëllëg laatinaa ji dikk la wa ma antum déet yéen bi mucjisin ngeen di way raw yàlla de amul kenn kuy lottaloo yàlla ba raw ko xul waxal yaa qawmi yéen aw nit sama yamaloo liggéey leen ala makaanatikum ci ni ngeen ko mënee inni man mi ñu yónni amilun aji liggéey laa ëllëg nag fa sawfa taalamuuna xal sa ngeen a xam man takuunu kan lay nekk la wañeel ko aqibatu daari mujj kër gi innahu luy mbir laa yaflihu du texe ëllëg addaalimuuna way tooñe de buur ne wa rabbuka alganiyu du rahma yàlla mooy borom yërmande ji wante mooy borom mbugal mi itam nag ni mu amee yërmande noonu la amee it mbugal ci loxoom la nekk waaye moo bari ay xéewal waaye nattu yi it moo ko moom moo ko yore benn waay ne na yàlla moo yore yërmande ay jël moo yore yërmandeem ba gémmiñ gu mu xar rek dana ci def dugub lu borom di lekk wante xoolal ñi faraan ci mbedd meek ñi xiif kan moo leen moom du moom kon na tuyee xat-xat yi it moo ko yore mooy rey mooy dekkal kon yépp ci loxoom rek la nekk ni mu amee yërmande la amee la ca des kon nag li gën ci yow rek mooy nga def ndigal ya te bàyyi tere ya waaye ni mu amee mbugal noonu la amee yërmande bàyyi na loolu mu ñëw ci beneen melokaan ci jaahiliya arab ja ak jaahiliya moo di ak ceddo moom nag dafa dafay jakk moo tax jële ko fii jafe arab yi nag seen ak cedd ñoom itam dafa nekkoon lu dëgër ba dañu daan jël ay xeeti xiram ak ay rey yuñ ca daan rey di wax ne yii dañ koy jaamoo seen xiram yi buur nag ne wa jaaloo ñoom def nañ li laay ñeel yàlla mi ma zara ci li mu bind min al arti ci mbay mi wala naa meg juru kër gi na siiban cër fa qaaloo ñu naan haada lii li laay ñeel na yàlla mooy niñ ko jànge woon démb ca xaameeg wasila bi zaamihim ci seen njorta waa daal lii nag li shurakaay na ñeel na suñu bokkaale yi ñu ne yàllaa ko moom gi jur comme mel na nii yàlla yi ñoo ko moom ji nag ñun ñoo koy lekk fa maa kaana lu nekk na bi shurakaayim ñeel seen bokkaale yi falaa yasilu du yëg si ilaay jëm ci yàlla fa maa kaana lu nekk ni laay ñeel yàlla foofu loolu nag yasilu mën naa yegg ilaa shurakaayim jëm ci seen bokkaale yi kon nag saa bon na maa yàqu moon li ñuy àtte de wa kadalika nak noonu zayana la rafetalee li katirin lu bari min al mushrikina ci yéefér yi qatla awlaadihim rey ak seen doom yu shurakaahum seen yàlla yi foofu dafa jafe ndax dafa indi zayana faayil ja dafa sori nag lool mu indi fi jaar ak majuróor ñoom ñooy ay gilliwari naxu mën nañu dugg fu ne li katirin jaar ak majuróor la min al mushrikin jaar ak majuróor la xaraf bi leen jar bokkul kon nag duñ bokk fu ñu aju mën nañoo bokk fu ñu aju waaye bu xarafu jar wi nekkoon benn dootuñ mën a bokk fu ñu aju moo tax ñu ne buñ bokkee xarafu leen jar ñu ne kon su boobaa ay góor lañ ah kon duñ man lu mooy ñàkk bokk jabar waaye buñ bokkul nag xarafu leen jar nag mën nañoo ay jigéen lañ mën nañoo bokk fu ñu aju loolu yëpp mu dugal ko ci diggante bi dal di indi nag dal di jiital mafuul mu di xat la mu dal di indi mudaaf ilayhi dooro indi faayil ca kanam moo tax wa kadalika nag noonu zayyana la rafetalee shurakaahum kooku moo rafetal lum rafetal qatla awlaadihim loola ma mafuul ma ana ci diggante bi nag li katiirin min al mushrikin li yarduhum ngir ñu alag leen wala yalbisu ak ñu jaxase alim cam diinum seen diine walaw shaa bu sooboon laa yàlla maa faaluhu duñ ko def fasarhum bàyyi leen wa maa yaftaroon ak li ñuy duudal yàlla wa qaalu wax nañ ne haadihi lii anaamun jurug kër la wa xarsun mbay la xijrun nekk na lu ñu tere laa yatamaa du ko lekk ilaa man nasha lu mooy ku ñu soob bis daamim seen njort ñu ne kii moom gan rek moo koy lekk moom waa na amun ñu sàkk ci juru kër gi yoo xam ne xurimat xaraamaleef na duhuru ay gannaawam loolu mooy xaami ñu ne kenn du ko war waa na amun am na juri kër goo xam ne laa yadkuruna duñ ca tudde isma laay turu yàlla alayaa ci moom iftiraan ngir duudal ali ci moom duñ ko duñ ca tudde yàlla te du medd itam nañuy lekk rek say jizim waaye dana fay leen bi maakaano ci lañ nekkoon yëfturoon di ko duudal yàlla ne liñ def sax méttiwu ma waaye li ma métti mooy liñ ma duudal ne man yàlla maa leen ko sant mu ne waqaaloo wax nañ ne maa fi butuuni haadihil anaami di nekk ci biir juru kër gi xaalisatun aji sell la di dukkuuri naa ñeel ku kuy góor rek mën nga koo lekk waaye wu xaramun lu xaram la ala azwaajinaa ci suñ jigéen ñi wayen yàkkun bu méddee nag nekk maytatan lu médd fahum ñëpp nag shuraka ñoo ci yem fii hi dal di ko lekk de say jizim dana fay leen yàlla wasum seen melo wa inna seen melokaan wi ñuy wax innahu yàlla xakimun ku xaral la alimun ku xam la xal xasira perte na lajëne ñi nga xam ne xatloo rey nañ awlaadum seen i doom safahan ngir dese xel bi gayri ilmin ci lul benn xam-xam wa xaramu xaraamal nañ maa razaqahum la wërsëgal leen ko laaw yàlla iftiraan ngir duudal àlalaay waral yàlla qad dallu réer nañ wa maa kaanu nekkuñ muhtadine di way jub de mu dellu si ci feeñu waayu kàttanu yàlla ak xéewalam ni mu toll ak it war a tontu mushrikoona yi mu ne huwa yàlla wa huwa yàlla alladi mooy buur bi nga xam ne ansha sos na jannaatin ay tool maarushatin yu ñu yëkkati muy raisin dañ koy mbaaral wa xeyru maarushat ak yoo xam ne kenn yëkkatiwu ko wa nax la yàlla moo sos tendrema wa zaraa yàlla moo def mbay ma mën ngaa am engrais mën ngaa arrosé waaye xam nga ne doo saxal saal ba it ak jiw wa mënoo ko créer mënoo ko sàkk yàlla moo tax mu indi baatu ansha muy sos mooy créer créateur kooku yàlla rek la nit mën naa composé ci li yàlla créé composé ci benn ak benn ak beneen mu jur leneen mu sélectionné génne ci jiwu ñu naan da ko traité da ko def nangam waaye créé bi moom yàlla rek mooy ki nga xam ne ansha jannatin maarushatin wa gayra maarushat wa naxla wa zara ak dugub ji muxtalifan lu wuute la uklahu am meññetam wa zaytun ak olive wa rumaan ak grenade seet ko mutashaabihan dafa niroo waaye wa xeyra mutashaabihin niroowut lu muy saf waaye yu ñoom ñëpp nag li ci gën a yéem mooy yàlla mi suukar banaana moo wexal kaani moo foroxal limon moo neexal itam pom te ñoom ñëpp nag benn ndox rek moo leen di roose kon ana fu wexal ga ak foroxal ga ak neexal gay jógee loolu yàlla moo ko yoreel boppam de moo tax mu ne mutashaabihan wa xayra mutashaabihan kuloo lekk leen min tamari yi ci meññetam ma isa asmara bu meññee wante man santuma leen lu mooy waatoo joxe leen rek xaqahu asakaam yow ma xasaad yi bésab góob ba wala tusrifu te bu leen yàq innahu yàlla laa yuxibu du fay almusrifina way yàqee de wa min al anami nekk na ci juru kër ga xamulatan boo xam ne dañ koy sëf wa farshan ak boo xam ne la ñuy dëggee ci moom dañ koy lal mu di kawar gi ak leen bi ku loo lekk leen mimma razaqakum ci la wërsëgal leen ko laaw yàlla wala tatabiu bu leen topp xutuwaati cheytaan rëddi cheytaan yi ak i jéegoom fi mu leen di jaaralee innahu cheytaanu lakum ñeen leen adduwu noonu la mu bindoon bu daay ji biir samaaniyati aswaajin yàlla ne bindal naa leen juróom-ñetti xeet ci juru kër gi min addaani ca xar mi gis ne ni ñaar laa ci bind góor ak jigéen wa min al maayisi ci bay wi gis ne ni ñaar góor ak jigéen xul waxal ne addakkaray ni ndax ñaaruñu góor ñi xarama la yàlla xaraamal amil unsayey ni wala ñaaruñu jigéen ñi ama shtamalat wala la lamboona ko ali ci moom arxamul unsayey ni roxamu ñaari jigéen ñi ndax moo xaraam bu fekkee loolu la nabi unii na ngeen ma solo bi ilmin ànd ak xam-xam nag ci wax jooju in kuntum ndem nekk ngeen saadiqina di way dëggu de yàlla ne wa min al ibili ci gëlëm njëkk naa wax ne wa min al ibili ci gëlëm bindal naa leen ci isnay ni ñaar wa min al baqari ci nag ma bindal leen ci isnay ni ñaar waxoon na ca gannaaw ne wa min al daani itnayn wa min al maisi itnayn xul waxal nag yow ne a dakkaray ni ndax ñaar ña ñaar ñu góor ñi mu di tukkal ga ca gëlëm ga walla yëkka wa ca nag wa xaramal xaraamal amel utun unsee ni walla ñaar ñu jigéen ña muy gëlëm ga ak nag wa amashtamalat walla la lamboona ali ci moom arxaamul unsayayni roxo mi ñaari jigéen ñi ndax loola tax mu xaraam wala boog ñaar ñu jigéen ña ñaar ñu góor ña mu di xaaf ma laa xaraamal ca xar ma wala sikket ba ca béy wa wala boog béy wa laa xaraamal wala xar ma xar mooy bu jigéen bi xaaf mooy bu góor bi sikket mooy bu góor bi ci béy béy nag mooy bu jigéen bi gëlëm bu góor gi tukkal la bu jigéen gi mooy gëlëm nag wu góor yi mooy yëkk bu jigéen bi moo di nag léegi nag ñaar ñooñu ban laa ci xaraamal loolu nag moo am ci jur gi yëpp wolof ba dafa amal bu nekk bu ko waxee rek nga xam ko buñ ne fas bu jigéen la bu góor bi itam mooy naari góor bi comme ni ñuy waxee mbaam ñu ne wajan mbaam ñu ne wajan la comme ni ñu waxee fasu wajan ak naaru góor bi nga xam ne mooy bu góor bi mbaam it dañuy wax mbaam am majan bale ñu tuddee ko am ngonk noonu lañuy def ñu buñ ne ngonk ñu xam ne góor la buñ ne majan ñu xam ne mbaam la waaye buñ ne wajan nag fas wu jigéen la yàlla ne na ngeen ma solo ci lii nag ban téere ngeen gis xaraam ak loolu ndax njigéen gaay tax xaraam wala ndax ngóor ga am kuntum wala nekkoon ngeen shuhadaa wa di way seede is wasaakum ba leen di dénk laaw yàlla bi asa ci wax ji yéen kay li seeni xëram rek la kon tooñ ngeen de fa man adlamu kan moo gën a mën a tooñ mi man iftara kuy duudal kadiban ay nar alalaay waral yàlla li yottala ngir mu réeral naa sa nit ña bi xeyri ilmin ci loolu benn xam-xam inna laa yàlla laa yaa di du jubalal xawma nit ñaa daalimina ñi di way tooñ xul waxal ne man kay laa ji du man fekkuma fi ma uxiya ca la ñu wax yu lay jëmee ci man muharraman lenn lu ñu xaraamal gisuma ko ci tawraat ala taamin ci aji lekk yataamuhu koog dana lekk ko ilaa an yakuuna lu may ba ta nekkee maytatan di medd aw daman wala mu nekk deret masfuhan yu ñu buusu aw laama xinsirin wala yàpp mbaami tugal fa innahu loolu lekk ko rijisun sobe la aw fisqan wala mu di génn ak topp goo xam ne uhilla yëkkateef na fa baat bañ koy rey li xeyri laay ci ku dul yàlla bi ci loolu fa man turra ku loru loof na ko nag ba mu lekk ko kooku xeyra baaxin duumaa ji bew wala aadin duumaa ji jéggi dayo de fa inna rabbaka naka sa borom xafurun aji baal la mu ko rahimun aji yëram la mu ko wa ala alladina ci ñi nga xam ne nag haadoo ñoo yëhootu woon xaram naa la ñu xaraamal ku la di dufrin lépp lu am weex ñu xaraamal ko ci yahud yi ndax buggal leen wa min albaqari ñu xaraamal ci nag wal ganami ak gàtt xaram naa ñu xaraamal alim ci ñoom shuhuma seen graisse graisse moo di nebbon illaa ma xamalat lu mooy la yenu na duhuruma seen gannaaw mooy la nekk ci yaxu digg gannaaw gi awil xawaaya wala fa mbàq ga daje ak butit yi mooy mbaam buqi ba aw maxtalata wala la jaxasoona bi azmin ak ab yax lu moo mooy li gën a naqari ci yàpp rek laa daganal ci yëwóor li ci neex yépp ma xaraamal ko daalika loolu jësey naawum ñoo leen ko faye woon bi bax yim seen ak bew way naa ñun la saadiquuna way de way dëggu lañ fayin ka dëboo ko ba ñu la weddee faqul waxal ne rabbukum seen borom du rahmatin mooy borom yërmande wasiatin bu daa ji yaatu wala yu raddu defu delloo baasuwoo aw ayam anil qawmi ci nit ñaal mujrimin ñi dafay def bakkaar waxtu muy naree bëggal nag kenn mënu koo fanq de yéefar yi dañoo indi benn lëntal bu doyadi boo xam ne ku ne mën nga caa tontu loolu ba tey da ngay dégg wolof da koy wax def sa lu ñaaw wala sa lu bon ba sottal buñ la ca naree yedd nga ne yàllaa ma ko defloo mu mel ni tey nekkuloo mu kàllaf nekkuloo responsable ci say acte te boo amee xel majeur rek say acte yëpp yaa ciy responsable kon nag jarul di lëntal naan yàlla ma ko defloo buur di ca tontu nag naan sa yaqulu xalse naa wax la dina ñi nga xam ne ashraku ñoo doon bokkaale ñu ne law sha allah bu neexoon yàlla ma ashrak naa doon bokkaale wala baawu naa du caageen suñu bàyya wala xaram naa duñu xaraamal min cheyin dara kadalika naka noonu kaddaba mana anamu méttatu weddiin woow kaddaba la weddee woon la jëne ni nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon noonu lañ nekkoon di weddee rek xatta daaqu ba ñu mos baasana suñu ay xul waxal ne lu fekkee ne loolu amut xaleen dakum ndax nekk na fi yéen min ilmin benn xam-xam fu ngeen teg li ngeen wax ne yàlla leen ko def loo fa tuxrijowu ngeen génnee ko lanaa ñeel ñu in tattabiuuna den ngeen di topp ila danna lu mooy njoorta way naantum déet yéen ila taxrusuun lu mooy ngeen di nattale rek waaye mu leen lu leen wóor de xul waxal ne fa lillaahi ñeel na yàlla alxujjatu lay wa albaaliqatu wu daa ji jot falaw shaa bu ko neexoon laa daa ko mujj ba leen ajmaina mboole seen xul waxal ne xàlluma ñëwal wool shuhadaakum seen yàlla yi xàlluma wool teew lool na nga teewloo nga woo shuhadaakum seen yàlla yépp la jëne di nga xam ne yashadoon ñoo leen di mën a seedalee ne anna laa yàlla xarama moo xaraamal haasa yi ngeen wax fa in shahidoo bu ñu wooyee ñu leen ko seedal nag nga xam ne ñoog ña leen seedal yëpp ay fenkat lañ su boobaa fala tachat bul teeweeti mukk maa woo ànd ak ñoom wala tabi bul topp awaa la dina bànneexi ñi nga xam ne kadda ba weddi nañ bi ayatinaa ci suñu alquran wala dina ñi nga xam ne laa yuminuuna duñu gëm bil axira hum ñoom yaadiloona ñooy sàkkal ndend bi rabbihim seen borom de cosaani yi xaraam nag yàllaa ngi koy wax file yàllaa ngi wax yi xaraam yépp file ak yi mu digle moo tax aaya bi bu yonent bi da koo jàng dal di ne su fekkoon alquran li dong ci wàccit kon mu doy ñu kon booye boo nga takk bu njëkk bi yàlla ne na bu leen ma sàkkal bokkaale ndax lépp lu dul man mbindeef la maa ko bind benn ngoog ñaareel bi lu ñuy digle la mu ne say wayjur dama laa sant nga rafetal sa digganteeg ñoom lu ñu la sant defal lu ñu la tere bayil feek santuñ la lu naqari yàlla wala ñu tere lu neex yàlla loolu mooy ñaar ñetteel ba lu ñuy tere la bul rey sa doom ngir ragal ñàkk gune gi juddu nga ne kii jigéen la bu dundee daanaka gàcce la fi yéndi nga wàkk ku mu dee wala du ma am lu ñu dundee bu xasee nekk doom ba juddu nee na bu ko rey ngir ragal ñàkk loolu lu ñu tere la ñeenteel ba mu ne aw ñaawteef moo xam njaalo la moo xam sàcc la wala leneen bu ko jege bu ko jege waxut bu ko def bul njaaloo waxu ko def ne bu ko jege ndax yaakaar na ne as gor du ko def kon nag bu ko jege sax la wax yow juróomeel ba mooy rey bakkan daf la koo tere nee na bul jege mukk bul rey mukk bakkan lu muy ci dëgg juróom benneel ba lu ñuy tere la mu yàlla li jirim ku ko lekk bàyyi ko juróom-ñaar ak juróom-ñett lu ñuy digle la mu ne booy jaay ak jënd booy pees peesekaay bi ngay peesee na baskil ba baax bu fekkee nattukaay la mu ne na fees na baax ba booy juróom-ñaar bi ak juróom-ñett ba juróom-ñeenteel ba da koy digle mooy sooy wax maandol sooy jëf maandol nit ki loo ko bañ bañ waxal ci moom dëgg njomboro ngi nii neexut la waaye bul wax mënul daw ndax loolu ñàkk maando la ndax mën naa daw kon nag na nga maando booy wax donte daf laa jege wala mu sori la fukkeel ba moo di ne lu ñuy digle la mooy kóllëre na nga ko matal bul wor bul wuruj mu ne lii muy fukki mbir yi nga xam ne moom la wax ne moo di yoonu yàlla wu jub wi yonent bi ne topp leen ko bu leen topp yeneen yoon yu bokkut ak yii kon ngeen bàyyi yoonu yàlla mu daal di rëdd nag tànkam ba mu rëddee tànkam moom yenente bi dal di sëgg di rëdd rëdd yu ndaw yu yuy yoo xam ne ñu ngi cëlee ñu ngi seqee ko ci rëdd wu mag bi mu ne rëdd wii mooy yoonu yàlla yàlla ne nañ ko topp yeneen yi nag boo bàyyi yoonu yàlla rek foog nga topp ci weneen yoon ndax mi nit mënul toog moom kay da ngay dem àllarbay muhammad wala dibéeri firaw na waaye toogam munta am moom moom boo demul fi ñuy jànge alquran rek nga dem fi ñuy carte wala fi ñuy demee waaye nit mënul toog fokk rek am loo nekk kon nag ngay nekk ci njub rek wala nga nekk ci dëng moo tax mu ne qul waxal ne taalaw ñëw leen kaay leen dikk leen at lu ma jàng maa xarama la xaraamal na ko rabbukum seen borom aleykum ci yéen ñu ne ko kaay nan ñëw nan noo ngi lay déglu mu ne yàlla def ne ala tushriko bu leen bokkaale bi ak moom cheyan dara wa bil walidayni seen ñaari way jur sant na leen ca ihsaana nag rafetal yàlla nee na wala taqtulu bu leen rey awlaadakum seen doom min imlaaqin ngi ragal ñàkk naanu ñun yàlla narzuqukum noo leen di wërsëgal way yaaw mag ñoom wala taqrabu bu leen jegee alfawahisha yu bon ya ma dahara la feeñ na minaa ca moom ma batanaak la nëbb na wala taqtulu bu leen rey anaf sa bakkan alati bi nga xam ne xarama xaraamal na ko laahu yàlla ilaa bilxaqi lu muy ci dëgg buur ne zalikum loolu la seen wasaakum dénk na leen bii ci moom yàlla laalakum ndax yéen tàqloon ngeen am xel wala taqrabu bu leen jegee maalal yetimi alal jirim illa bi lati lu mooy ci anam gi nga xam ne hiya moom ahsanu mooy gën a rafet muy anam ak deferal ko hatta yabluga denc leen ko ba mu jot ashudoob dëgëram ngeen jox ko waaw foo matal leen alkayla am natt wal misaan ak peese bil qisti cig maandoo laa nu kalifu dun togg nag nafsan bakkan mu mel ni da nga ne ko yàlla yi may wax kat jafe na mu ne ndax am mën nga ko ndax maa bind bakkan xam naa lim man ñun dun togg bakkan illa wusaa lu mooy kembe kàttanam wa iza qultum su ngeen di wax faadiloo maandu leen walaw kaana donte nekkoon na wax ja za qurba jëm ci boromi jege ñaale wa bi aadilaay ko la yàlla aw fu matal leen ko buur ne zalikum leli seen wasaakum la dénk leen yàlla bii ci loolu laalakum ba yéen te dakkaroon a ngeen waaru waa naada li siraati ma di sama yoon mustaqiman mu daa ji jub fa tabiu topp leen ko wala tatabiu bu leen topp nag subula yoon ya fa tafaraqa kon mu teqali ko bikum ci yéen an sabili ci yoonam dalikum la li seen wasaakum dénk na yàlla bii ci loolu laalakum boo yéen te taqoon a ngeen ngeen ragal yàlla de mu ñëw ci alquran ñi ko gëm ak ñi ko weddi buur ne su ma gannaaw gën ak aate naa joxoon nañ Musaa alkitaaba téere yónni ko jox ko téere tamaaman muy aji mat alal ladi ci li nga xam ne axsana moo gën a rafet mu mat lool rafet lool wa tafsilan mu nekk di teqale it li kulli cheyin bépp masala bu ñu soxla wa hudan njub la woon it ku bëgg a jub wa rahmatun yërmande la ku ci jaar laa lahum ndax ñoom bi liqaay rabbihim dajeeg seen borom yuminu nañu gëm ko wa hada lii ma wàccee tey it kitaabun téere la anzal naa wàcce nañ ko mubaarakun buñ barkeel la yéen it fa tabiu toppaleen ko wa taqu te ngeen ragal yàlla laalakum ba yéen turxamoon ne def yërëm leen an taquloo ngeen di wax naan innama unsila naka wàcceef nal kitaaba téere bi ala taifati ni ñaari kuré min qablina ñu ñu jiitu bañ rek ngeen naan yahuut ak nasaraan rek lañ wàcce ci ñoom téere ñun arab amuñu te ñun déggun làkku ibar dégguñu ay nasaraan wa in kunna naka nekkoon nañ la gaafilin di way sàgganee andiraasi tim ci seenam ci jàng ko bu ngeen seenu lay jeex na da ngeen naroon a wax ne téere yi ci yahuut yi la wàcc ak nasaraan yi te seenu làkk ñun déggunu ko léegi nag wàcce nañ ko seenu làkk aw taqulu wala ngeen wax ne law an naa donte nako ñun unzila wàcceef naa lay naa ci ñun alkitaabu téere bi lakku naa kon ñu nekkoon ahdaa di gën a jub minum ca yow ak nasaraan léegi nag faqad jaakum dikkal na leen bayyinatun lu wóor min rabbikum bàyyee ko seen borom wa hudan njub la it wa rahma yërmande la kon nag képp koo xam ne toppuloo gëmuloo kon tooñ nga ndax weddi nga buur ne wa man adlam kan moo gën a mën a tooñ mi man kaddaba ku weddina bi ayati laay ci kawte fi yàlla yi wa sadafa mu dëddu ana walis ko bu boobaa sana gis yi dana nu fay la si ne ñi nga xam ne yasdifoon ñooy dëddu ana ayatina ci suñu kawteef ñu fay leen soo la adaa bi ñaaw ak mbugal bi maakaano ci liñ nekkoon yasdifoon a di dëddu ko de buura nga leen di xupp ba tey naan leen wattandiku leen balaa bés penc ñëw tukkati laa dina tirmisi génne nag ahmed abu hurayrata nee na yonent bi nee na yett yëf bu xasee am addinaa ngi tukki du dellu gannaaw mu ne loola bu xasee am nag ku tuubuloon sax boo tuubee dootuñ ko nangu ndax day fekk bunti tuub yi ñu tëj ko mu ne loola bu amee laa yanfau nafsan imaanuha lam takun amanan min qablu bu ñu toogee ba jant bi xëy rek fenkee ca sow bu ñu jësee demee ba dajaal génn réer ga matale bu ñu demee ba benn daaba génn ci suuf si di waar nit ñi daaba jooju dina ñëw ca kanam ak wax joo xam ne ju bari la waaye li wér mooy ak nit la ak nit la koo xam ne dafay indi am njub loola bu xasee am am dañu ko taawilee nu nekk ne nañ Mahdi la ne nañ yonteele Isaa yi dellu si wante alquran moom daabatul ardi la wax bu génn di wax ak nit ñi te kooku nit lay doon naan leen li dëgg mooy li yonent bi indi woon nangam ak ki nangam mu ne buñ toogee ba gis loola comme yi yëpp dafa am sikk ak werante muy dëjjaal ak daabatul ardi bi am na boo xam ne moom ñëpp mën nañ koo xam bu ñu xëyee daal jant bi fenkee fi mu daan soyee xamal ne nag léegi rendez-vous ba jot na moo tax mu ne alien duruun ndax dañuy xaar ilaa an taatiyam ba dikkal leen almalaayikatu malaaka ya aw yaatiya wala dikk rabbuka sa borom aw yaatiya wala dikk baadu ayaati rabbika lenn ci kawte fi yàlla yow ne naa dinaa ngi tukki buur ne yow ma yaati yi bés ba dana dikk baadu ayaati rabbika leen ci kawte sa borom bu boobaa laa yanfa du jëriñe ci nafsan bakkan imaanuha gëmam lam takkun gu mu nekkutoon amanat diggam ko min xablu ci jëkk aw ka sabat wala mu weddi fi imaaniyaa ci gëmam nga xayran aw yiw xul waxale in tadiroo mu ñandiku leen innaa ñu nit mun tadiroo na ñoo ngi xaar de loolu tëkku la xaar leen ñu nit noo ngi xaar ba xam bàyyi na loolu mu ñëw ci mujj ak wuuteeg doomu aadama yi mu ne indi ladina naka ñi nga xam ne farraqu teqale nañ diinahum seen diine wa kaanoo ñu nekk chian di kuré lasta déet yow yonent bi minum ci ñoom fi cheyin nga jot ak ñoom dara ñi nga xam ne dañoo teqale seen diine ay xaaji xaaj yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na alul kitaab teqale ko nañ juróom-ñaar fukki kuré ak ñaar ñëpp ay dem safara nee na sama xeet danañu teqali ko juróom-ñaar fukki kuré ak ñett nee na juróom-ñaar fukki ak ñaar yëpp safara la ñuy dem benn kuré ba rek mooy ciy demal jann ñu ne ko ban la mu ne mooy bi nekkoon ci kitaab ak sunna nekk ci li ma nekkoon maak sahaaba yi moo tax mu ne inna alladina farraqu diinahum wa kaanu chiyan lasta minhum fi chi jote ak ñoom dara innama amruhum nak seen mbir ila laay jëm na ci yàlla su ma yónnaa bi mu yàlla moo leen di solo bi ma kaanu ci liñ nekkoon yafaaloon di def ko waaye yàlla nag yàlla buur bu maando la te it bu baax la de teg na fi ay reegal nekk ko def benn danaa la fay fukk yu baax boo defee benn bu bon nag ma bindal la benn bu bon rek mu ne loolu ak baax la kon loolu moo di reegal bi lépp loo def rek su baaxee xamal ne yàlla dencal na la fukk su bonee dencal na lañ benn boo yittewoo sax lu baax te defoo ko yàlla bindalagum la benn bu mat sëkk boo yittewoo ab safaan nag te defagoo ko yàlla du la bindal dara naka noonu yéene ja mën naa rafet ak jëf ja rafet ba ñu fay la lu ëpp fukk xanaa fay la juróom-ñaar fukk wala juróom-ñaari téeméer ndax yàlla nee na man maa yore fu la ndekaay ba nu ma neex laa koy defee loolu yépp nag buñ koy wax koor bokk ca benn ñu fay la fukk benn ñu fay la téeméer benn juróom-ñaari téeméer régal yooyu koor bokk ci yàlla ne yépp yépp nag tëral naa régal yi ma lay fayee ba mu des koor loolu moom ah comptabilité bi maa ko yoree moom te tëraluma ko ciy régal mën ngaa def benn genn koor ma fay la téeméeri junne ndax maa moom loola loolu moo tax mu ne kullu amali ibni aadama lahu ila siyaam fa innahu lii wa ana ajzi bi nit lu mu def moo ko moom am na régal yu ñu ko koy fayee waaw ci santage ba mu des koor loolu moom joxuma ko kenn waxuma compta comptable yi nañu ko natt wala ñu calcul ko loolu ci man la féete rek maa koy fayee ni ma neexe bur ne xul waxal ne inni ni man hadaani jubal na ma rabbi sama borom man jaa kon ku dikkee na bil xasanati fi danañ ko waaye waxuñu baat yi man jaa ku dikkee na bil xasanati ci lu baax fa la ñeel na ko ashru am saaliya fukki kemi la mu defoon maanaa soo defee benn bu baax ñu fay la fukk yu baax loolooy man jaa ku dikkee na bil xasanati ci lu baax fa la ñeel na ci ko ci pay asharu am saaliha fukkee la kem lu baax la mu defoon wa man jaa ku dikkee na nag bi siyeeti ci lu bon kooko falaay jusa defu ko fay illa misla lu mooy kem la mu defoon kon moo tax yonent bi ne toskare ñeel na ku say benn benn ëpp say fukk-fukk kon moo sàggan nga waxum ñoom laa yo da la mën a defu tooñ leen de kul waxal ne inni nii man hadaani jubal na ma rabbi sama borom ila siraatin ma jëm ci yoon mustaqimin woo xam ne daf ne coow wa diinan diine la xayiman ju jub muy milati ibrahim diine ibrahima xanifan muy aji jëng wala lépp lu jëng wa maa kaana nekkul ibrahim min al mushrikina ci way bokkaale ya kul waxal ne inna salaati naka julli gi may julli wa nusuki ak gàtt yi may rey di ko jaamoo yàlla muy yu ngént gàtt yoo xam ne ganale gan laak gàtt yoo xam ne ma koo def ngir had yoog wala tabaskeeg yépp wa maxyaaya dund bi may dund wa mamaati ak sama dee gi may dee yépp lillaahi ñeel na yàlla rabbil alamin ki borom bindeef yi jébbal naa ko lépp la sharika di daaju bokkaal la woo ñeel ko wa bi dalika ci loolu umirtu la digaleef na wa ana man awwalul muslimin maa njël be nag ñiy jébbal seen bopp yàlla de xul waxal ne a ab xii ndax da ngeen bëgg ma sàkku nag xeyra laay ku ma yàlla rabban mu di sama borom wowate yàlla rabbu kulli shay'in moom moom lépp laf wala taksibu du fàggu kul nafsin bépp bakkan illa alayha lu may lam fàggu woon ca kawam lay dal moo ko moom wala taziru du yenu waziratun bakkar bakkan buy bakkaar wisra uxra bakkaar ak ñenn ña suma marjiukum seen delluwaay ila rabbikum jëm na ci seen borom fa yunabbiukum yàlla moo leen di solo bi maa konum ci la ngeen nekkoon tax téléphone di wuutee fii ci loolu le mu ñëw ci sunna si yàlla ci ay mbindeefam yàlla rek la soob nit ku nekk loo def danañ la laaj lu tax nga def ko ba mu des yàlla moom laa yusalu ammaa yafaal kenn du ko laaj lu tax yàlla def nangam moo ko neex yàlla dara waru ko même nga ne war na naaj tey waroon na sedd war na taw war na tàng danga xamut yan baat nga mën a jëfandikoo rek waaye baatab war du foofu ndax yàlla la dara warut ndax war ci mantiq li muy tekki mooy loo xam ne da nga koy def ñu fay la boo ko defut ñu mbugal la te loolu du du jëm ci jëmm yàlla ja moo tax yàlla dara waru ko lépp lu mu def rek coobareem la moom bind gim bind nit ñi coobareem la bu leen ñàkkalee it coobareem la yàlla rek mooy buur bi nga xam ne sañ na bind nit mu jaamu ko ba dee mu lakk ko loolu yàlla moo ko sañ ma sañ na bind nit itam mu di ko mooy ba mu dee mu baal ko loolu yàlla moo ko sañ ndax moom mooy yàlla sañ na it nit bari ay bakkaar di barile di barile ba yàgg mu baal ko yépp sañ na ko sañ na nit di am di am ba yàgg mu ñàkkal ko nit di ñàkk-ñàkk ba yàgg mu amal ko loolu yépp yàlla moo ko sañ li ko waral mooy registre bu mag ba moo ko moom lu ko neex mu bàyyi ñu bind ko ci lu ko neex mu effacé ko mu ne kooku mooy yàlla dafa séddawul mbir yaag kenn kenn kenn lu nekk rek moo koy def amul kenn ku koy def loo amul kenn ku koy sant kenn mënu koy influencé bu fekkee yërmande la wax ba mu wax ba mu yërëm la moom yërmande moo ëpp yërmande yi nit ndax moom mooy borom yërmande ku am yërmande sax moo la ci jox su fekkee mbugal la itam mu di payu fayu kenn du ko influencé ba mu soxoree kenn ndax moom yàlla moom mooy borom moom mooy borom borom mbugal ma yàlla moo la bind kon jarul ngay ragal dee ndax daf laa bind ba pare wax ne dana la rey ndax yàlla dee la njëkk bind door a bind dund xalaqal mawta wal xayaata kon mawtu la njëkk bind ci xayaat kon nag yow kay li la war du loolu li la war mooy liñ la sant nga nekk ci rek waaye di ragal dee ak di xam kañ laak bés pénc ak kañ lay ñëw ak kañ laa dinay tukki sa yoon nekku ca fexeel ba waxtu wu dee di ñëw wala waxtu wu bés péncey ñëw fekk liñ la santoon yaa nga ca benn woykat wax na ko mu ne wala suu baali ne nañ aliyun la wala suu baali xiina uqtalu musliman ala ay jambin kaana fi daaka masra'i su ma dee jaa xarmal yaa ngi nañ ma ko sàngeek nañ ma sotti sam-sam beek nañ ma sul ca place sàngam ak nañ ma yóbbu ci dëkk sàngam ak amul benn njëriñ dénkaane boo dee ñu def nii ñu def naag na ma diw taxaweek yépp da nga koy def pour tiit ak jaaxle rek waaye sa yoon nekku ci li sa yoon nekkoon daal mooy boo deexee fu ñu lay suul ak nu ñu lay suuleek ku koy taxaw kooku problème mu ñuy dund la yow sa yoon nekku ca di bàttaleek wut ay càngaay denc ak yii yëpp ni da koy def rek pour ñàkk fayda waaye jaru ko boo dee rek problème mu ñuy dundal dañ seen nu ñu la sàngee ak nu ñu la suulee la nga leen a xasewal ñoom fokk ñu def ko ñoom jaru te dénkaane jege ji kenn nit du jëriñ kenn lenn sori kenn du wàññi kenn lenn ku nekk bu ñu la suulee sa jëf ngay fay nekkee moo tax ibnu abi talib ne na hoon wala su ubaali xiina uqtalu musliman ala ay jambin kaana fi daaka masra'i mu ne man daal faalihuma buñ ma reyee daal bu ma dee daal fekk maa ngi ci yoonu yàlla nekk julit gëm yàlla faalihuma mu leen neexoon sax bu ñu ma suulee naa jublu sow naa jublu penku buñ ma suul ñu yeboo ñu lakk ma wala ñu sànni ma man daal sama yoon nekku ci comme dee naa ci li yàlla wax daal xam naa ne dootuma faale ala ay jambin kaana fi daaka masra'i yàlla moomu nag ci coobareem dafa nuy bind kii xam mu bind kee mu réer kee am kee ñàkk kii am daraja kii ñàkk ko mu yëkkati ñenn ñi ca kaw ñenn ñi ci daraja ngir nattu leen ba xam ki jox daraja ji ndax dana ko tax rëy ndax ki jox ñàkk gi ndax dana ko tax a ñàkki loolu mooy tax aji ñàkk ji fokk yàlla nattu ko ba xam ndax su ñàkkee day ñàkkeem déet ndax day xarab yàlla aji am ji foog yàlla nattu ko ba xam ndax su amee day bewam déet aji xam ji foog yàlla nattu ko ba xam ndax xam gi dana ko tax réyam déet aji réer ji foog yàlla nattu ko ba xam ndax réeram gi dana tax mu xarab yàlla wala déet moo tax mu ne huwa yàlla allazi mooy buur bi nga xam ne jaalakum def na leen xalaayifal ardi ngeen di way wutu ci suuf wa rafaa mu yëkkati baadahum leen baadakum leen ci yéen ah fawqa baadin ca kaw ñenn ña mu yëkkatil leen darajaatin ay daraja li yabluwakum ngir mu nattu leen rek fi ma ataakum ci lu leen jox in rabbaka naka sa borom sariwul xisaa iqaabi ku gaaw ci mbugal la wa innahu yàlla la gafurun aji bale la rahimun yàlla aji yërëm la suratul araafi saaru tundi beeñ ya màkk la wàccee